ñëw. waaw nag yaa ngi nii de ñu ngi leen di sarse ñu jëm Touba. nagu Aziz Ndiaye yaa ngi noonu. ndànk rek ndànk rek. ndànk rek. ndànk rek. ndànk rek waaw. ndànk rek ndànk métti ndànk rek. cay. waaw waaw. jërëjëf Mbacke. jërëjëfati Mbacke. jërëjëfati Mbacke. jërëjëfati Mbacke. amiin Mbacke amiin Mbacke. amiin Mbacke amiin Mbacke. amiin Mbacke. amiin Mbacke. amiin bi dafa foor Baye Ndiaye. dafa garaaw. macha allah. macha allah. mooy li nga xam ne moom mooy liggéeyam mu bëgg na nga ñaanal ko ci sa borom gën koo kattanal te te dooli ci taw fiya ba li ci yéene lépp mu am ko ci mu ñëw nag ànd ak sa doomi bopp sëñ Cheikh Abdou moom mu soxna Oumy Touba ak Serigne Alaaj Cheikh Samb lépp li waaye indi xéewal xam ne da ko barkeeloo ci bis bi ci bis bi te ñaanal yi ki nga amoo ko dul ñoom muy délégation bu mag ñu ñëw ba Tiwaawan tabarakallahu da moo tax dafay wax di ay ay xaay tamit soppeen naan xanaa kilifa sañ naa jëf ba noppi taalibe jël te jëf jooju ngir royuwaay mhm. royuwaay boobu tey fi indi ci bis bi nga xam ne nii sa maam Xaadimul Moustapha woote na ci ngir ñu ñëw santal ko suñu borom. loolu tax Abdoul Aziz indi tey li mu indi te xeeb ko lool te yéene lu ëpp loolu yàlla na dugg ci sa barke ci sa ñaan ci indi wala shukura sëriñ bi jërëjëf Mbacke Abdoul Aziz a ngoog Ibou Chador a ngoog gaa yi yàlla baax billaahi wallaahi yàlla ak coppeel ak mbëggeel dina am ci sëriñ bi mm-hmm. rawatina am ko ci soxna si am ni sëriñ bi a baax nag yàlla na ko suñu borom dugal foofee nañ la gërëm nañ la a mu saal bi tuuti ba ba ba mu xam ni donte ndax nee na fii kër soxna Bally kees la ci kër gi Aziz Ala Ndiaye fierté Guédiawaye fierté senegal barke Serigne Bamba ndeysaan non ni Aziz Ala Ndiaye di doxee biir Touba kenn attanu ko barke sëriñ Bamba lii lii lii lii mooy wane ni maanaam fépp la amul fenn sax interdit xajalewul barke Serigne Bamba réew maa ngi toj billaahi wallaahi waaw waaw lii kenn attanu ko lii kenn attanu ko mbedd maa ngay xar barke Serigne Bamba li yëpp ñàkk xaajalee tax nga am ko. nga dimbali yaa ma booleeg saw askan. ndeysaan Saal nga lan cey Saal. waaw waaw cey Saal cey Saal. balle borom Touba ban la wax guñu la maay kan wax guñu la dara. billaahi wallaahi nit Saal xaaral Saal waay Saal waay. jërëjëf Mbacke jërëjëfati Mbacke jërëjëfati Mbacke jërëjëfati Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke. amiin Mbacke amiin Mbacke. amiin Mbacke amiin Mbacke. amiin lii dafa foor Baye Ndiaye dafa garaaw macha allah macha allah. mooy li nga xam ne moom mooy liggéeyam mu bëgg na nga ñaanal ko ci sa borom gën koo kàttanal te te doole ci taw fii ba li ci yéene lépp mu am ko ci mu ñëw nag ànd ak sa doomi bopp sëñ Cheikh Wade moom mu soxna Oumy Touba ak Serigne Alaaj lépp li waaye indi xéewal yi bari xam ne te ñaanal la nga yor yi ki nga ne amoo ko dul ñoom muy délégation bu mag ñu ñëw ba Tiwaawan tabarakallahu da moo Aziz dafay wax ay moroomam ak ay xaay tamit soppeem naan xanaa kilifa sañ naa jëf ba taalibe jël te jëf ngir royuwaay mhm. royuwaay boobu tey moo ñu fi indi ci bis bi nga xam ne nii sa maam xaadimul Moustapha woote na ci ngir ñu ñëw santal ko suñu borom mhm. loolu tax Abdoul Aziz indi tey li mu indi te xeeb ko lool te yéene lu ëpp loolu yàlla na dugg ci sa barke ci sa ñaan ci indaan wala shukura sëriñ bi jërëjëf Mbàkke